yëpp gars yi baak yi in seen média encore une fois ñu ngi fii aussi ci centre Guédiawaye hip hop ci benn compilation bu tudd Jaxaw démocratie organisée par grand frère Fou Malade donc dañoo nekk benn artiste bu jaay pré quoi artiste boo xam ne gars pour nga gis ko émission émission kese gars bi c'est tout un problème quoi gars bi day laqatu dafay affaire am duñu balancé affaire quoi loolu foog ñu laaj ko bro ñu ngi lay a baax. naka yi tey. yee naay sant yàlla loolu da nga jàpp rek yow doo Basse. <laughs> non fi laaj des fois au fait noonu la demee. <laughs> yow da ngay da ngay dafa bëri quoi je sais pas ce style de job dafa dafa wute gars yi carrément yi ñuy job fi nii quoi. yeah pour de vrai pour de vrai en tout cas may doxee man loolu laa gëm quoi dafa nekk lu ma gëm ko pour réew. da nga nekkoon États-Unis ñëw wala États-Unis juddoo. musuma dem États-Unis musuma dem fenn maa ngi juwee maa ngi kin bi. <laughs> fini. maa ngi jiwee maa ngi Pikine tamit yaa ma gën a xam for real yeah. dama doonoon tànk tey ci ci Jaxaw démocratie bi. bon ñëw représente quoi parce que déjà comme ni ma ko waxee maa ngi jiwee jiwee sama sama secteur la sama lépp fii laa amee lépp donc. c'est normal mon équipe quoi for real yeah. ok naka nga aussi concept de la démocratie sélectionner artiste boole leen ci benn affaire pour la démocratie. yeah pour de vrai en tout cas euh, avant et surtout tout de me remercier Malal si si invitation et tout ça et je trouve que concept bi affaire beaucoup cool et ça aide beaucoup le mouvement hip hop. surtout si Estan bi nga ramené, ne hip hop il y' a rien qui se passe quoi nice j'apprécie beaucoup quoi for real. tamit Ce projet sincèrement pour moi beaucoup de projets projet yi gën a naaj si rap man c'est mon avis personnel ah. parce que projet projet bi mujjee génn ak ak série série de freestyle yi même yére bi même teinte de couleur ci clip bi aussi non vraiment c'est c'est du beau boulot quoi donc suite bi lan lay doon. bon suite bi moom changement lan laa mën a wax mooy doon suite mooy changement en fait évolution gën a percer barrières yi gën a dem si kanam c'est ça loolu mooy suite bi en fait. yeah for real. am naa sama benn rak aussi sama benn rak déglu bu baax a baax nee na moom mais grand bi tamit day lakk anglais rek gaañ. <laughs> bon loolu moom dëgg la quoi ñu bëri ñu bëri dañ may si critiquer mais tamit pour man du ma teggi lu ma gëm pour def lu gars gëm quoi même su ma ko mënul def lépp sax dama ko siy boole quoi. yeah for real non. la est-ce que aussi tu du influence ay influence ci côté hip hop bi bien sûr influence à 100 pour parce que man kaanay la déglu ñoom ñoo tax ma rap et tout ça yaa ma gën a xam. gis gis nañ aussi yow tu fais partie des artistes les plus rares maanaam pour ñu gis la ci ay comme gars yi ñuy def nii benn artiste génnee benn bar, rek ci 200 visé nga tontu yow c'est pas ton cas quoi yow. non pour de vrai man je me sens pas concerné parce que man dund ma game bi en fait non la demee quoi loolu moy réalité bi leneen lay dundou leneen moy sama vision xam nga et aussi gëw gaay li ñuy def au fait man suma démé bay wax ak nit wala nit su wax mu may toucher day fekk limi wax mu doon deug wala mu taxaw sama kanam waxo mais bu dee son nga jékki-jékki sànni pique et tout ça non ça me fait rien quoi bàyyi naa di tontu ci genre truc yoy quoi yeah mais aussi est-ce que da nga nekk ci label parce que def nga série de freestyle

en fait en fait pour man daa affaire boo xam ne priorité quoi te priorité pour man si son yi la nekk quoi si production bi la nekk ñoom tamit loolu lañ gëm loolu lañ jiital moo tax ñoom duñ affiché wu duñu duñu mettre seen bopp en avant mais au contraire artistes yi dañuy job si produit pour dans le futur maanaam yegg foo xam ne du jar ñuy publicité suñu bopp quoi yeah that's man nga waaw jaaxal nga ma yow <laughs> ma quoi yow Baye <laughs> mais c'est un plaisir recevoir la on espère aussi am la suñu émission Gemba bi ñuy def. on espère am la foofu na nekk mën na nekk ñu ngi a wër quoi. yeah for real mën na nekk mën na nekk de toute façon dañuy yaatal après incha allah. ñu ngi la jaajëfal bro. jaajëf maam.